a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim a'uuzu dana ma muslu a'uuzu dana ma yéedu a'uuzu dana ma kattaliku billahi ci yàlla mina shaytaani ci shaytaani ar-rajiim kadi kuñ baqare maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu ci yàlla mu màgg mi mu musal ma ci shaytaani kuñ dàq ci tumati ci ñu tàmbalee boobu baa téere bi képp ku bëgg a dugg buur a nanguram mën a day doo sañ ñëw mukk dal di dugg laa bu dëgg nga diisoo bañ leen a duggal doo bëggee jàng alxuraan nag mel na ni yaa ngi bëgg a dugg ci téye wax ak yàlla moo tax nga fëggee buntu ba laaj ndigal fëgg buntam yàlla laaj ko ndigal ci dugg ci téyam nag mooy baatab a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yonent ne ñu ngi dama lu waxee jëlee ko ca al euh, jëlee ko ca àll wa jëlee ma foos mu jëlee mu jëlee ko ca rabu tabaraka wa a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yatti tëgg ñëw na ci alquran a'uuzu billaahi samil aliim mina shaytaani rajiim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa samil aliim waaye tëgg ci gën a jëf waaw moom la ñuy jànge mooy a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek moom la yàlla wax wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek a'uuzu billaahi maa ngi mucc ci ci seytaane suñ dàq si booy wax onze billahi mina seytaane rajim nag ay ay àddina ñetti xaaj la ay yoo xam ne ñu ngi nga dafay waral nga di ëllëg ci ak ay yoo xam ne ci sa yaram lay wàcce ak ay yoo xam ne du ci diine du ci yaram lu ci nekk ci ñetti xaaj yi soo koy seet amul dayo ay yoo xam ne ci diine lay dellu te doo gëm yàlla na mu waree wala jëf yoo xam ne jëf yi mooy yàlla la nga xam ne dafa lay lor ci sa diine amul dayoo bëri da dem na dayoo ay yi xam nag ne di ci sa diine di ci yaram nit la yàlla may ci àddina nag dala ci doom ak xalal lépp lu la jox loolu itam ay mën na caawàcce yooyu ay soo koy seet amul dayoo képp ki wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim nag war ngaa teewlu ne yaa ngi musu yàlla ci mboolem xeeti xay yi xay wuy sa diine xay wuy lor sa yaram de mas naa la xas dem ci xuraasaana di sakku xam-xam ba am fa hadiis yu di dem ci sóode di jàng ba wattu ñeneen ci jinne hadiis ci moom sabu ko nag ne ko maa ngi ñibbi mu ne ko ma wax la nag baax boo xam ne moo ëpp njëriñ boo dem liñ ci wattu ci xam-xam mu ne ko loolu la mu ne ko ndax seytaane am na ci seen réew mu ne ko waawaaw mu ne ko ndax dana leen di jax-jaxal mu ne waawaaw mu ne ko frère seytaane jax-jaxale nu ngeen di def mu ne ko ñu jañ ko mu ne bu dee mu ne ko ñu jéem koo jañ mu ne ko mënu leen loolu mu ne ko seytaane bu la jax-jaxalee mën la ko jañal sa bopp melal ni gan guddi gi ci kër xajab borom kër ga baaw ko bëgg ko song su bëggee mucc ca xaj ba dafay làqu ca borom kër borom kër ga moom waa mu xam fu muy yem waaye soo bëggee songo xaj ba mën naa gaañ la wala mu xott say malaan de waaw saytaane yi ñu xajam yàlla su la jax jaxalee bul jëkki jëpp jeneen seen moom laqul ci boromam rek ne a'uuzu billaahi mina saytaani rajiim laaj ko Seydina Ali bu dara yàlla la ndax ci gëmul yàlla saytaane amul ci moom soxla ñu gëmul yàlla ñooñu saytaane pare na ci ñoom ba noppi ñu gëm yàlla kay ñooñu nga jéem a xeexat pour yàqal leen na ba képp ku yam jax-jaxal ci sa xol wala ngay jamal ci say jaamu yàlla rek na nga xam ne waaw ku gëm yàlla nga rek yonent bi mas naa génn di dem ci jàkkaam fekk Iblis taxaw mu ne ko noonu ak yàlla mi looy def sama yoon mu ne ko yàlla ma yebal pour laaj ma mu ne ko ma laaj la ne ko lu tax ngay tere sama sama xeet lu tax tere nga di ñuy dem ci mu ne ba suñu jëlee jëm ci jullit mbooloo damay xob sàngar woo xam ne daf may togg ba ma ñor duwéne mukk fee tasaaro wuñu bokk nañu di jëlee sam mu ne ko lu tax waaw nga di leen waaw xaaye koor mu ne ko su koor ñëwee dañ may seen seen suma dootuma génn ci kaso ba ba weeru koor di weer waaw moo tax waaw moo tax ma bañ koor mu ne ko lu tax nga di leen xaaye sarax mu ne ko suñu bëggee génne sarax dañu sab fii teg ko ci sama bopp di ma fii waaw pour mu bañ a dox diggante ba ba sax tey dugg ca loxol miskin ma ñu soog a tegu ci ci ci sama yaram mu ne ko lu tere nga di lu tax nga di leen tere jàng alxuraan mu ne ko suñ toogee di jàng alxuraan damay seey ba boo xam ne dañ ko seeyal ci safara waaw fii ñu ngi jàng alxuraan rek ci ba ba nga xam ne ñu jàng nañ bàyyi nañ jàng alxuraan yëpp mu ne ko maa lay laaj waaw ana koo gën a bëgg ci nit ñi mu ne ko nit ku nay te xañaan te tër te mbëru kooku daal moom su ko xamee dañ koy daldi fab rek muy seytaane buur la ci ñun waaw kooku moom duñ jéemate put ci moom dara moom dañ koy fab rek muy tell ci ñun boole nay waa ak kër ak añaan ak réew bi kooku moom seytaane ci boppam la seytaane fasal na ci moomoom ama si billaahi allahu alam la ca màggab yàlla mi nga xam ne mooy war ci xam te moo doylu wari lépp lu dul moom te ku dul moom xaaju la jëm ci moom seytaane mi ngi bàyyi ko ci satana bii ci sori ndax waaw dafa nekkoon ci téyeb ba ñu daq ko soril ko dafa nekkoon ci aljanna ñu daq ko soril ko rajim mooy kuñ daq mooy ci jam waaw